waaw situation bi effectivement deuxième vague bi xaw na métti lool parce que actuellement nii nii nii nii suñu xoolee globalement li ñu am si ay cas mi ngi toll ci deux cent cinq ca euh, première vague bi la ñu amoon cent quarante sept cas mais ci deuxième vague bi la ñu am complet la nga xam ne moom moo si topp mu toll ci à peu près euh, une euh, en tout cas plus d'une soixantaine de cas di ñu xool essentiellement mooy surtout mois de février bi en si le cas yi gën a gën a bëri diggante janvier ak février donc mois de janvier bi wax on était à 20 cas mois de février bi ñu commencé ak léegi tey ñu ngi ci sunu trent 33e su suñu xoolee aussi si mois de février bi semaine bi passé mooy semaine bi nga xam ne moom mooy semaine bi nga xam ne moom moo gën a moo gën a bëri cas depuis mën naa wax 4 jours maintenant chaque jour que jëfee yëmbal enregistre au mois cinq cas donc mu nekk loo xam ne nii mën nañ gis ne mën nañu wax ne en tout cas euh, succès yi ñu amoon ci lutte bi ci première phase bi ñu ngi koy commencé perdre à tel point que ñu ngi commencé vraiment di am dab yenn district yi xam ne nii en tout cas ñoom ñoo ñu gën a bëri cas donc li ñu mën a wax daal mooy que ni cas yi en tout cas mi ngi gën a bëri te li ñu si gën a jaaxal mooy semaine bii ñu génn moom si la gën a affaire yi gën a gën a gën a gën a grave. ci deuxième ci deuxième bi nii nii nii amagum nañ cinq décès. cinq décès am nañ ko ñaar ñaar ñi ñàkkee seen bakkan ci euh, seen kër ñam nañ si ñaar ñoo xam ne nii ñàkk nañ seen bakkan ci centre de santé bi te am nañ si kenn koo xam ne nii mu ngi ñàkkee bakkanam ci centre de traitement épidémiologique bi donc euh, bon première phase bi aussi amoon nañ ay décès amoon nañ six décès mais six décès yooyu si daanaka juróom-ñetti weer la woon alors que six cinq décès yi ma lay wax nii si ñaari weer la donc maanaam si ñaari weer lañu am cinq décès comparé à six décès yoo xam ne ñu ngi ko amoon si juróom-ñetti weer donc su rythme maintenir nii ah mën nañu wax ni deuxième phase bi mën na vraiment gën a garaaw lool lool lool première phase bi. beneen mbir bi itam li ñu gis mooy ci première phase bi cas yi ñu doon am li ci ëpp ay cas simple la doon nekk muy cas yoo xam ne nii euh, mënoon nañu en tout cas doon ñoon tiit ci seen ci seen wér-gu-yaram mais ci deuxième phase bi li ñu gis mooy ay cas la ñuy am. ah fi mu nekk nii euh, bés bu set yàlla euh, bés bu yàlla sax dinañ am gën gaa néew ñaar ba ñetti cas grave yoo xam ni dinañ leen téye ci centre bi di leen wutal place ci service de réanimation yi et te loolu aussi wax nak loo xam ne nii en tout cas lu lu lu xaw a doy la en tout cas ñu wax nit ñi daal que ni pandémie mi ngi fi te li ko gën a li li ñu gën a gis daal mooy que ni cas grave yi ñoom dañu gën a yokk par mm-hmm. rapport ak ak première phase bi. bokk na si yéex a ñëw bi si hôpital bi beneen mbir bi itam mooy li ñu gën a gis mooy mag ñi muy daal mag ñi nga xam ne moom lay gën a daal ensuite deuxièmement moo nga xam ne ñu am ay comorbidité mm-hmm. donc parce que ci cas yi ñuy am yëpp li ci ëpp ñu ëpp juróom benn fukki at lay nekk te ñi ci ëpp itam ci nekk day fekk ñu ànd ak comorbidité maanaam ñu yore tension yore diabète mm-hmm. donc loolu itam bettuñu parce que virus bi su circulé bu baax lu mu gën a plus muy rencontré ñi nga xam ne nii dañu nekk ay mag. yoo xam ne nii dinañ yore ay jàngoro xëy na mën na daal xale euh, mu nekk forme mineure du ñëw sax def hôpital pour seet yaramam mais su xasee dal mag boo xam ne nga am comorbidité da ngay def benn forme au moins modérée wala grave kooku moom ala kulli alim foog nga dem hôpital ah wala boog soo resté si kër ga sa bakkan euh, en tout cas da daal di ñaar sa bakkan donc loolu moo tax en tout cas de plus en plus ñuy gis ay cas grave si biir kër yi cas grave yi su ci biir hôpital yi rek li mën a xam mooy que ni cas simple yi itam yokku na xëy na dañu gisul cas simple yëpp mais cas simple yi yokku na parce que effectivement su cas grave yi commencé yokk di ñëw ci hôpital yi ay cas grave di gën a bëri ci hôpital yi rek li ñuy firndeel mooy aussi cas simple yi gën a gën a bëri. Euh, xam nga oxygène euh, dafa am daa en fonction ni ngay soxla oxygène jumtuwaay bi ngay soxla pour oxygène day dépende si sa niveau sa niveau euh, de détresse maanaam ñi nga xam dañu am ay détresse respiratoire modérée mm. ñooñu duñu ay extracteur lu ñu ay extracteur d' oxygène leen mën a jàppale. loolu yàlla def nañ si am nañ si ñett yoo xam ne nii moom la ñuy utiliser fii ci hôpital bi donc li nga xam ne dañu am cas modéré dañ leen mën a euh, li ci des mooy bouteille oxygène ñi nga xam ne dañu am cas sévère nga xam ne oxygène bi ñuy soxla day nekk oxygène pur di ñuy soxla parfois ba fukki litre ak juróom par minute boobu itam euh, yàlla def na am nañ fi ay bouteilles yoo xam ne nii ah en tout cas jàppale ministère de la santé ak si jàppale comité de développement sanitaire bi nga xam ne day jënd moom itam oxygène ñi ngi chargé bouteilles yooyu pour ñi nga xam ne dañu am cas sévère ñu mën leen a ak euh, oxygène boobu nga xam ne nii mooy mm-hmm. nekk euh, oxygène pur bu nekk si bouteille suñu xëy suñu paree sax xëy nañu ñu wan leen <laughs> yi ñu ci mujjee jënd léegi léegi léegi nga xam ne léegi léegi léegi lañ ko jënd mu lu xaw a cher nag donc parce que oxygène xaw na cher non mais état bi mu ngi siy def kéemtalaay kàttan bu ñu jàppale comité de développement bi tam mu ngi siy béy waaram mais nit ñi xam rek ni oxygène yooyu ñu leen di jox en tout cas euh, boo jëlee benn cas rek bu nekk soo ko gardé au moins pendant quarante huit pendant vingt quatre heures di nga fay cent cinquante mille francs oxygène pour maintenir ko en vie donc loolu mu wax nit ñi ne vraiment kon ñu xam ne en tout jël bi ñu leen di jël en charge fii lu diis ci état bi la mais lu diis aussi ci système de santé bi la mu tax loolu nag war tax ñu gën a gën a euh, yeesalaat seen taxawaay ci ci moytu parce que xaalis boobu xajoon na ci leneen ah donc ñu gën a moytuwaat rek def respecter mesures barrières yi pour que ñu bañ am ay cas grave yoo xam ne day nécessité ay moyens yu am doole pour mën leen a faj correctement. waaw xam nga bon en matière épidémiologie pour nga mën a tëb ne nangam moo ko waral day xaw a jafe mais day am ay hypothèses euh, ci hypothèses yooyu bokk na ci climat bi parce que ñëpp gis nañ ni jamono yi moo gën a sedd te virus moom dafa am na xeetu virus yoo xam ne ñëpp xam nañ ni sedd la ñuy gën a actif maanaam ci la ñuy gën a mën a circuler. Euh, bon beneen mbir bi nga xam ne am na hypothèse boo xam ne itam euh, nit ñaa ngi koy wax mooy xëy na avec euh, mouvement de population yi notamment marché yi transport yi ak école bi nga xam ne y a beaucoup de de population à part les activités économiques et sociales loolu itam day nekk ay source de propagation du virus suñ fa respecté wul mesure barrière yi suñ ko respecté wul ni ñu ko war a respecté ci bërëb yooyu nga xam ne ay bërëb activité socio-économique la euh, ñetteel ñetteelu hypothèse bi comme toujours damay wax hypothèse mooy li ñuy wax l'existence de variants beaucoup plus contagieux te itam dool itam ah ne nañ en tout cas gëstukat yi nga xam ne ñoom ñu étudier virus bi nee nañ am na beneen variant bu bees boo xam ne moo gën a gaaw a wallaate boo xam ne dugg na ci mi te loolu bu dee am na itam mën na expliquer que vraiment que contamination bi gën a yokk xam nga ñun nag duñu def génotypage fii parce que ñun yorewuñu laboratoire buy def confirmation dañuy def prélèvement rek yóbbu ko ci laboratoire Institut Pasteur ñoom ñooy def génotypage ñoom ñoo mën a wax exact mais lu ñu mën a wax rek mooy su fekkee ne dugg na si réew mi ak échange socio-économique yi nga am ne am nañ ko ah du ñu bett bu fi nekkee itam. vaccin yi moom mooy suñu yaakaar ci xeex bi fi mu nekk nii mooy sunu yaakaar bi gën a dëgër ci xeex bi parce que euh, yaakaar naa ni euh, amul benn maladie infectieuse si àdduna bi xam ne gagné nañ ko te jaaruñu ko ci vaccin banaa infectieuse bu àdduna bi gagné rek. bokk na ca la ko gañe ay ñàkk te itam euh, euh, ñàkk yi nga xam ne nii organisation mondial de la santé valide na ko nekk na yoo xam ne niveau d'efficacité yi ñu am dal na sunu xel yaakaar na ni suñu si ñàkkee une masse critique de personnes maanaam nit ñu xaw a takku suñu leen ñàkkee ah dina tax feebar bi ralentir en tout cas su fi jógewu itam dootul am doole bi nga xam ne nii amoon na ko. waaw message bi leen di lancer rek mooy comme ni ñu ko waxee sànq euh, bon que ni d'abord. nañ gën a farlu ci mesure barrières yi ah maanaam ci takk masque bi ci respecter distanciation physique mais aussi ci raxas loxo yi beneen mbir bi tam ñu dalal seen xel ci mbirum ñàkk bi nga xam ne moom moo fi dugg parce que ñàkk comme ni ma ko waxee mënul nekk loo xam ne nii en tout cas aujourd'hui mënuñu jël ñàkk boo xam ne wóorul di ko ñàkk euh, Sénégal di ko ñàkk sénégalais yi ñàkk yi ñu utiliser itam yaakaar naa ni si àdduna bi ñàkk ni ci ay millions million millions doomu aadama te gisaguñ si ay jafe donc euh, loo xam ne nii scientifique bu àdduna bi yëpp d' ci nañ ne mooy solution bi yaakaar naa ni war nañ si mën a dalal suñu xel d' autant plus que ñun suñuy scientifique ñi nga xam ne nii ñoom ñoo am xam-xam ci mbir moom itam d' accord nañ ne mbir mu mbir mu baax la donc ñaan nit ñi rek ñu gën a wóolu seen système de santé te xam ni en tout cas musiba fii bi fi yàlla teg muy mbas mi yàlla moom mooy indi li nga xam ne moo ko mën a dindi te yaakaar naa li ne ñoo ñu ngi toll si 23 ñoo xam ne ñoom ñoo nekk ci seen kër ñu leen di faj am nañ aussi ci centre de traitement yi cinq personnes yoo xam ne ñu ngi ci centre de traitement yi génnaguñu ci biir centre de santé bi itam am nañ fi quatre personnes yoo xam ne ñu ngi en attente maanaam positif nañ ñi ngi xam ne ñu ngi leen fi téye en attendant ñu leen di amal place ci centre de traitement yi. waaw xam nga euh, traitement à domicile bi yomb na jafe na ça dépend rek ci nit ki nga xam ne nii conscience am ak aussi ay ay ay ay waa këram. parce que euh, nekkul ne banlieue bi dafa xam mais ki nga xam ne dafa positif bu nangoo toog benn place nangoo isolé wu nangoo respecté mesure barrière nangoo takk masque am euh, si biir këram ah nangoo def loolu rek yaakaar naa ni mën na dana tax mu ni ma mais nit a ngi nag yore chambre individuelle am yore appartement moom doom nga ne ko à domicile te su xëyee dugg si otoom dem marché dem fële donc c' est pas du question xataay wala question je pense état d' esprit la ah nit ñi si boppam ñoo war xam ni en tout cas ñoo am war a am civisme ne man dama feebar dama war a moytu pour ma a wàll ñi ci des que ce soit sama biir kër que ce soit ci sama bërëbu liggéey ak dama war moytu mais gis nañ fi ñoo xam ne nii dañuy positif euh, mais seen condition yëpp réunir na mais du tey ñu génn dugg seen oto dem def lu leen neex dem supermarché dem marché dem et cetera même liggéey donc je que du question moyen du question dëkkuwaay bu xat question état d'esprit la quoi